boo jàkkaarloo yeeg soxnay sëñ Béthio yi mu leer na yow ñoo la mag baa bokk ay soxnay kilifa lañ nga di leen tuddee ay wëyoo yooyu te yow li ngay wax maa jël seere sëriñ Touba jël seere sëriñ Béthio bi ma yaakaar àddina ak àllaaxira ku la tegal kaami jàpp loola ba nga set loo loo ci wax dara du ci dëgg dañ lay xamal ne leen ni àdduna boo fekkewul xamoo da ngay màndu gis nga euh, artis yi ma mën a joxe. manoo ko man mii njabootu Serigne Béthio laa de li may wax bu ma ci deewoon tey duma ci am benn bakkaar. ci sunu borom ci sama digganteeg sunu borom lu ma wax xam laay wax lu ma xamul duma ko wax dañ leen di jàngal àdduna ne nit bu ñàkkee wor ma bay jàll ay soxnay kilifa di leen di jël lu ñaaw di ko teg seen der ñoom it dañoo am ñoo xam ne nii dañuy mën a defanteegi yiin yow preuve yi ma mën a dugal yow benn amoo ko ci xanaa ci internet bi moo tax yaru dafa am solo ñun nu waaye dikkee rek ñu àndi kook yow ndax li ñuy wax li lépp lu xew maa jël seere sëriñ Béthio munoo cee wax lu toll ne tarafatu ay ni nit da ngay maandu xam nga tey man xaw ma sa problème wala sa problème famille bu ma ci waxee lu toll ne tarfatu ay ni rek maa ngi ciy bakkaar te ab jullit warta di bakkaar di yanu ay bakkaar di dem ak moom ci wax loo xamut ñun duñu ay xale danoo ànd ak sëñ Béthio tëwunu taxawaaluunu bonunu wayee diwunu danoo yar fi mu nu yare war a yare may doomu soxna bu ma la waxoon tey sama tuur ak sama sant nga jommi nga xam li may wax provilaire nañ laa am man sëñ Béthio ba muy miraas boppam damaa miraasaale may alalam di ab taalibeem waaye boo fekkee ay gone yi ndaw nekk ci internet di di dal sa soxnay sëriñ da ngay defanteeg ñoom da ngay mel ni ñoom looloo tax ñu futteeku ñu ni mel ni yéen te maa waat ñiy wax ci soxna yi de kenn xamu ko barki sëriñ Saliou Mbacke ñi ciy wax ni ñëpp kenn xamu ko waaye maa bëggoon ngeen dem fekk ko ba fa ko sëriñ bi yare ngeen xam mooy kan waaye ne si internet jàpp ay soxnay sëriñ Béthio naan ay woyu lañ ñu ne dañuy woyu mel ni yow mi ko wax waaye kenn yarewuñu ci violence wala di wax lu ñu xamul ñun yarewuñu ci loolu taalibe lañ ñu yaree maa ngi dégg benn góor yàlla ndeysaan di wax naan dal ci di dal li ma wax bu dajale woon njabootu sëñ bee taaw ba ca faatum coro ba ci soxna baam bi miy caat li may wax kenn du ko dindi téere la araf biir araf barke sëriñ Saalim ndax ñu amuñu ku dul sëñ beccu tey yaakaaruñ ku dul moom tey it gëmuñu ku dul moom tey it bëgguñu ku dul moom ku jóg nag jàmmaarloog njabootam te ñu ay taalibe dañuy jàmmaarloog yéen parce que amuñu ku dul sëriñ beccu benn kun fi laaloon sa alali sëriñ nga gis sa bopp ñaar tey jii amul benn benn benn taalibe bu am sañ-sañ fekk sa soxnay sëriñ ngay dal ci kawam moom góor yàlla boobu di wax tey ku ko defoon soxnay sëriñam mu jàmmaarloo moom waaw sëñ Saal dëgg la mooy taawu sëñ Béthio mooy xalifa bi waaye na xam ne ñee ay yaayam lañ bu yaay amul woon doom du am ba yàlla di sàkk daa sàkk ñaari doom jëmmi doomu aadama daa wàcc góor wàcc jigéen jigéen ji di wéttali góor gi góor gi di wettali jigéen ji tey bu loolu amul woon sunu boroom doom du juddu te doom foor foor ndeyee ko gën a foor ndey moo gën a foor doom ci kaw suuf yaay moo gën a foor du ñu ay jaay da jàng nañ alxuraan xam nañ li yàlla wax ak yonente beeg sëriñ Tuubaa duñu ay jaay du ay dofa topp sëñ Béthio wala ay ñu wayee di déedéet du wala ay innocent ñu sëriñ Tuubaa dimbalee ko topp kon tey boo amee audience ne ci internet bi rek yow amee soxna yi rek naan ay wuyu lañ te xamaloo leen dara benn yaa ngi bàkkaar ñaar yaa ngi wax loo xamut ñett yaa ngi tooñ te tooñ weesu ngay xëy di tal sa moroomu jullit ci loo xamut chaque fois dama la koy wax te ñun ñi xam fekkee ñun rek ñoo mën a wax ni mu demee waaye ku fekkewul maandul ab julit day maandu loolu la yàlla wax ci alxuraan maandu mooy lépp ndax yaa gis nga ne ah maa gis yaa fekke nga ne ah maa fekke yaa dégg nga ne waa man teewe naa ko loolu loolu mooy cadre julit waaye yow dégg ci internet bi rek dégg ci rajo yi rek tëb ànd ci di xasakas wax wax bu ñaaw bu ne moo tax ñu la koy delloo bis boo fi indee taalibe rek ñu tegal la taalibe gu mat sëk waaye boo indee neneen jàpp ko soxnay kilifa amee leen rek di leen wax wax bu ñaaw boo teggi jàll ca ba ca des bu nee nii nga jàllaat ba ca des amoon leen loo leen di adressé ay wëyu moo tax ma ne la da nga koo njëkkee ki ko nit ku wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo bu cosaanoowul woon ci yow doo ko am fitu di ko ah, wax sa moroomum jigéen boo xamalul dara waaw maam góor jasaaka yéen a yem maam góor jasaaka noonu la def ci internet bi di toog di di wax lu amut ana bugaan zali day maandu gis nga wax ni muy laalee xol noonu lay yaa ngi lor sa moroomi jullit yu bari moo tax bu boo laalee nit nit laal la rek ni muy mettee ci yow noonu lay mettee ñun lu nu waay wax baax na ku nu saaga baax na waaye ñun lanu dund ci cant gi ñoo ko xam ñun ñoo am audience wax ko respect rek les réciproques tubaab loolu la wax les respect les réciproques